ba tey ci seen scandale di jour de ce vendredi 23 février 2024 kii di Gora Macky nag nee naa leen moom saa yu ko tàllalee micro xam ngeen bëggee bëggeelam ci ki nga xamante ne mooy président Macky Sall ginnaaw bi ko journaliste bi laa laajee ni que euh, dañuy naan président Macky Sall moo jënd glace maanaam moo woote apaisement moo woote jàmm moom nag nañ dem déglu li nga xamante ne tontu na ko euh, ki ko tàllaloon micro. mooy. dañu dégg ñu ne Macky Sall daa jënd xam nga dama dégg sénégalais yi loolu bu ma koy wax damay ànd ak àll Macky Sall moo yor paawa Sénégal à part sunu borom xam nga paawa paawa mooy doole dama indi li ma Koura njaay léegi bii biir pale fii nga toog lañ lay fekk jël jëla duñ la laaj dañ lay ŋàddu dañuy teg micro bi yëkkati la Macky kan moo kan kan moo mën a tax Macky Sall jënd galaas ci réew mi kan kan ah, ñi ko wax ñi kàcc la ñuy def xam nga ko jënd galaas hmm. Sonko waa Pastef man Coura Macky man may wax ak yéen duma fen duma naafeq gusuma dërëmu kenn gusuma bëtu kenn awma tiitukaay duma ragal duma raf mani Sonko moo jënd galaas di woo Macky Sall di di di jooy. daf ma metti xam nga lu tax mu metti ma. président Macky Sall du kuy jënd galaas dafa nitee <laughs> yow xam nga lan la xoolal. Aïssa sama yaay gedd na bàyyi na émission bi sànni na suñu micro bi yaay nag nga sànni suñu bi yaay nag euh, liñ la wax nag dérangé na la yaay gedd na sànni na émission bi. mama Koura mama Koura waroo mer nag ba sànni suñu micro bi nag waaye journaliste bi xàmmee ngeen ko fu mu dem ñu sànni micro bi gedd mama Koura lu mu la laaj méttiwul. Macky ndax daa jënd ga Macky kay démb biñ ko seetaanee gis nañ Macky bu jënd glace nag mama Koura nag Macky daa jënd glace de Macky paix jàmm ak réconciliation maanaam juboo juboo waaw juboo moom foo ko dégg moom jàmm la waaw moom nee na euh, pourquoi pas ñu proposer loi d'amnistie gars yi voté rek Sonko daal di libre Macky jënd na galaas de jënd na jàmm Macky ah maman Koura nag bul mer nag bul mer bul mer ba sànni suñu micro bi nag maman Koura Macky Sall ñu seetaan démb ma seetaan ko ñu seetaan ko Sénégal seetaan ko àdduna seetaan ko. Macky jàmm la woote xaw ma jënd na galaas xaw ma jëndul galaas waaye jàmm la woote mhm. président nee na léppee jàmm rek jàmm rek jàmm mu ne foofu ko jàmm jàmm ci la lépp xaj mhm. loolu la wax bul mer jëndul galaas ah nduru na ko de nduru na ko jënd galaas de waxuma la benn sax waaye fukk galaas la jënd fu mu nekk nii président ndeysaan man dimb dama seetaan président mu naan waaw Euh, senegal jàmm moo fi xaj kilifa diine yeeg ku nekk woo na ko xam nga voilà jàmm waaw jàmm jàmm libération Sonko jàmm Bassir Diomaye Faye jàmm euh, Mama Koura bul mer Macky jënd na galaas xam naa da leen tàgguwul rek yéen waa APR